final bi war a am si diggante ay Seyda Baye ak bokk jom bu Touba Fall na nañu jàpp ni lépp yemb na laata samedi bisub final bi ndaxte kii parrain bi di Cheikh Abdoulahad Mbacké Gaynde Fatma ministre conseil yembal na lépp moom ministre du sewoon bàyyiwul dara indil na leen équipement sportif yu am qualité di ay jeu de maillot ballon trophée ak it sax ay médailles boole ko une forte enveloppe de cinq cent mille francs CFA moom Cheikh Abdou Bali yebal délégation bu mag ca booba maire bu Montréal Mbaye moo ñëwoon ngir daje ak organisateur yi naka noonee Sadibou Ba bi nga xamante ni mooy président zone 3 mënul woon tey ay émission kontaan loolu nekkat lu ni mel mi ngi koy soog a gis ci nawetaan fii si Touba Fall. sama xol dafa sedd guy ci jëf bi nga xamante ni ku tedd ki jëf na ko di sëñ Seex di ministre. Euh, fii laa juddoo ba màgg bi toll nii lii musuma ko gis c'est la première fois di ko xamal ne jàppoon nañ waaye gën nañ ko jàpp di leen yóbbanti nuyoo ak cant ci moom yónnee gi mu yónnee ci ñun egsi na ci ñun sëñ bi moom nee leen ko ñun ñun moom desalatu ñun desalatuñu dara ñun ñoo ko desal dara jàppoon nañu waaye ñun xam naa ne ñun suñ ji biir jëmmi bopp jàppoon nañu waaye incha allah dinañ yokk suñuy jéego ak suñu taxawaay ci sëñ bi incha allahu rabbi ndaxte lii kat jëf la goo xamante ni jëf gu am solo la jëf gu rëy la vraiment ñun nag amuñ lu dul suñu bés suñu bés nag biñ ko joxee sëñ bi vraiment gis lii moom kenn du natable lu ne fàng la kon sëñ bi yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla taxu mu yàggu fi loolu te maire bi tamit kenn demul mu des moom El Hadj Gningue gis na ni kat seen parrain bii de taamu bi ñu ko taamu juumuñu jàpp ni sax lii day firndeel nii mi ngi si wetu jeunesse bi amul xaj yi ak seen ne nag act bi mu def kawe nañ yottam loolu moom El Hadj Gningue ba tax nag mu koy fësal demee nag boo mu des ñaari finaliste yi diggante xelay daabaay ak ASC bokk jom bu ñoom ñaar ñoo war a finaalu donc euh, bu bi mu bi loolu desee ñu war a wut parrain ah, lañ ñëw ci man ne ma monsieur le maire ñun de bu ñu sañoon di nga ñu seetal parrain boo xamante ne nii ñu defal lu sedd suñu xol. ma ne incha allah déglu leen ma bi yàlla dogalee ma jot sëriñ bi dama ko wax hésité wul dafa ne dinaa ko jël ndax yow ndax gis nañu sa taxawaay sa ambition mais sa ay réalisation ci commune bi. également ci département bi sa taxaw ci bëgg président Macky Sall moom sëriñ mooy wax ma ne loolu de moom dëgg la waaye nag dama bëgg aussi sa liggéey ñu ngi koy naw fu nekk dugg nga ci monde rural bi dama bëgg nga dugaat ci mm-hmm. ndax ci côté emploi am na lu mu jël ci monde bi ñu ngi ko bëgg nag mu yokk ko mm-hmm. kon nag bu ñu demee aussi ci wàllu sport ak culture ñu wax ko ko mu nangu koo jël loolu aussi beneen paala boo xamante ne ñëpp a ci kontaan. Mm-hmm. monde rural bi yëpp parce que quatorze communes yi nga xam ne moom ñoom ñoo nekk composé wu dans le département de Mbacké bokk ci monde rural bi ñëpp a yëg ne Cheikh Abdou Bali mooy parrain wu final 2023 bu commune bu Touba Fall mm-hmm. c'est pas évident kon nag loolu ñu ngi ko ciy sant bu baax ko gërëm. maire Mbaye Tine représentant Cheikh Abdou Gaynde Fatma du Haut Conseil des collectivités territoriales moom it sant na sëriñ bi mu jàpp ni kat mosul fàtte monde rural bi ne nag mat na sëkk liñ koy doyee si wàllu politique fii si département de Mbacké. ñoo ngi sant yàlla bu baax ci ñëw gi ñu ñëw Touba Fall fekk fi suñu nawle maire waaye ñëw fii ci ndigal le ministre conseiller sëñ Cheikh Abdou Cheikh Abdou Gaynde Fatma euh, mu yebal ñu. boole ñoo leen ci njaboot gi Moustapha Lo siñ Cheikh Gueye suñ Gora Mbuub ak suñ Aliou Dem ma ànd ak sama chef de cabinet siñ Mbacke Diop mu am mbégte lool ci ndaw Touba Fall ginnaaw bi ñu seen xel demee ci ñu war a dem ba nekk ci pandawu seeni seen seen seen nawetaan te président Sadibou bi muy jiite ko ñu jaar ci seen bunt di monsieur le maire El Hadj sama xarit ngir mu wutal leen ku leen taxawul seen bés bii taxawu bés nag lu metti la lu bari coono la waaye sëriñ bi xam ngeen ne sax daanaka lii du mbiram waaye bëgg taxawu askan wi bañ a gàntal kenn bëgg won ñëpp ne moom ñëpp la fi nekkal. loolu moo waral bi ko El Hadji nga waxee mu nangu ko ci saa si hésité wul sëriñ bi nag lii mu def Touba Fall dafa mel nii defal na quatorze commune quatorze commune monde rural bi yëpp ndax commune rurale dañoo am jafe-jafe ci ku leen di taxaw ci bis yu mel nii dañ ci lot lool sonn ci lool fu ne la ñuy fëgg waaye bi ñu ko fëggee mu xam loolu xam li mu yenu ci responsabilité mu xam ne ko njaboote ñëpp sa loxo fu ne la mën dugg fu ne la war a dugg moo tax mu nangu ko ak fierté ngir ñaar ngir taxawu ndaw ñi waaye it ngir mais El Hadj Ngingue mi nga xam ne moo ne ci Touba di fi def liggéey bu am solo. di final zone 3 diggante daa bàyyi ak bokk jom bu Touba Fall pare bi de yembal na lépp li des mooy jour yi football dans le fair play comme ni mu ko sàkkoo jàpp ni kat sport du leen lu dul foo agréé moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma